je crois que am nañu ku nekk ci ligne bi ah monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu bu baax. ñu ngi eh, monsieur le ministre tey tey tey tey ci sa njaboot yàlla wonewaat boppam ci un grand champion sportif bu mag taxawal Sénégal yëkkati drapo Sénégal. muy Touba tey jii moom moo génn àdduna et balaa ñoo jox kenn kàddu gi nag comme que ci sa njaboot la bokk ñu jaale la avant ñu lay wax dara mu Moustapha mi ngi lay jaale maa ngi lay jaale téléspectateurs yi ñu ngi lay jaale di jaale le président de la république ci Touba mi nga xam ni moo wàcc liggéey tey boo dee wax ci duubalees tey lan ngay wax. waaw balaa ñoo yegg ci lu ñu mën a jël ci moom ci leçon ak euh, lu lu ñu jàpp ne ji ku ko def ci li mu nekkoon boo ko jegewul di nga tegu ci yoon bi damay jaale Sénégal yëpp ci turu président Macky Sall fu Sénégal ak sportifu sénégalais yëpp di jaal njobootam euh, ku tudd Balla Gaye rek tudd nga njoboot gi yëpp Sa Thiès di njobootam yëpp ñu ngi leen di jaal ñu bokkal écrit ñu fu mu dëkk waa Casamance Sénégal yëpp daal la ñuy jaal ci lii nga xamante moo dal ci réew mi mu nekk lu métti euh, daloon ñu yàggul ci mbay gi ñoom tamit ñu koy ñaanal yàlla yàlla xare jana di jaalewaat mbokk yëpp di wax ne daal euh, yàlla moom noppi na lépp lu mu bëgg a def wala lu mu war a def rek wala lu mu programmé su jotee àla kuliyalin ndeyam li ci des nag moom mooy ku nekk Euh, lu mu jot a def ci li mu nekkoon euh, li ñu ciy jëriñ mooy xool jéego ya daan def ci fulla ci fayda ci bëgg li mu daan def bëgg réewam parce que nit ñi dañuy jàpp ne ñu ci bëri surtout ndaw ñi bu ñu nee Double Less dañuy jàpp ne di traditionnelle u Sénégal rek la daan def lutte avec frappe waaye lutte olympique it lépp luy raaya wala luy mbégte andi na ko réew kon dañuy jàpp ne euh, icône bu mag dëddu na eh, yàlla yit def na eh, li mu daan def gat na ci ay doomam ba ñu nekk ci ay champion kon kon nag bu fi génnee noo def mu de andi wéetaay nu ko def mu andi naqar waaye ku gëm yàlla la woon maa ngi fàttaliku bu ñu dajee ci eh, pose première bi arène nationale bi mm-hmm. mu loolu li taxoon mu def loolu day wane ne làmb ji bëgg am na acquis bu am di ko bégee ak njobootu làmb yëpp teeru président Macky Sall ñu saafanto ñu jël fa photo yu bare bari loolu daf ma fàttali lu lu lu am solo Bécaye Bécaye li ma lay fàttali ki à hmm. part li nga xamante ne mooy jikko yi taxawaay bi ak li mu defal réewam ba ma nee tut tànk nekkoon ca jaxaw Moussa Ndiambe xam naa ne yow war nga koo fàttali kii bañ daan bëre ñun bokkoon nañ ci ndaw ñi nga xam dañ daan déglu rajo yi di déglu Double Less Mbaye Guèye di déglu ñooñu ñoom Robert Ndiaye ñuy bëre hmm. eh, kon tey ñooñu xàll nañ yoon woo xamante ne képp kuy takk ngemb wala nga nekk ci làmb demu mbay Guèye demu Double Less ak demu mag ñi parce que ñu bëri dem nañu dafa war a nekk jom ñi nga xamante ne ñoo nekk ci làmb ji nekk jom ci ñun ñi nga xamante ne tàggat yaram moo nekk ci ñun pour que ñu continuer liggéey yëkkati affaire bi ba nga xamante ne ñoom fi ñu ko andi ñun ñu mën koo andi fu ko fu sut fop kon Sénégal wéet nañu Sénégal am nañu naqar waaye lépp dañ koy delloo ci yàlla di ñaan suñu boroom yàlla yërëm ko. amin yàlla xare ko àjjana. amin amin ñu lay jaale mais mu amoon melokaan melokaanu sportif mu amoon esprit sportif. mu doonoon koo xamante ni bëggoon na réewam patriotisme bi mu ci doon woone saa woo xamante dem na sol na bu verte jaune rouge. Mhm. tey jii ci ci ay jikkoy Double Less loo ci conseillé doomam yi nga xamante ni ay sport ñii basket ñii football ñii làmb lan nga ci mën a joxe loo xamante ni xale yi war nañ ko mën a roy. xam nga man li ma jàpp mooy képp ku yàlla may nga sol sa maillot national wala nga téye sa drapeau réew. dem di ko defendre rek yàlla may na lu rëy rëy parce que xarañ rek taxul yàlla may la chance boobu yàlla moo tax ni ñi nga xamante ne ñoom ñoo yegg ci màqaama yooyu te ku xool ci Double Less xam ne jàmbat taxu ko am manqué condition yu taxu la mu am mu mu bañ a mu bañ a def li mu waroon a def patriotisme day tax nga fàtte jafe-jafe patriotisme day tax doo am benn gis-gis ci sa kanam lu dul sa réew ak lu ko sagal loolu nag dëgg-dëgg yàlla dëgg rek la bëgg ci làmb ji ñu nekk bokk na ci mag ñi nga xamante ne mbay Gueye tàggat na Moustapha Gueye keneen def na leneen keneen am na doon mu mu ji ay wala hmm. sit def na lu rëy ci ay moom tey fu ñu taxaw wane xarañ dafa bëgg seen réew moo tax daw ñi muy football muy basket ak quelles que mm. soient les difficultés quels que les problèmes yi mën a nekk suñ kanam nañu ko jël xool suñu réew dem ceek fulla dem ceeg fayda dem ceeg xarañ rien que pour défendre mm-hmm. loolu defe naa ne ku ko ngemboo boo dem boo daanoo it dangay ngay daanu les armes à mm-hmm. Mm-hmm. te daanu les armes à la kooku ndam la li bon mooy daanu ko war daanu wala nga jaag-jaag ba daanu kon réew mi jarul ñuy wari feneen exemple yëpp a ngi ci domaine boo dem lépp lu nit defal dëddu rek am na ku ko def ci réew mi ñu xam ko te ñëpp bu ñu defee noonu jafe-jafe benn ci am ministre kon encore une fois képp kuy takk ngemb la famille de la lutte les sportifs maa ngi bokk kee naqar wi nga xam ne moo dal suñu kaw mhm. Tafa. Mhm. am nga ah, macha allah gërëm ko sant ko rek. waaye ministre ñu lay gërëm bu baax. waaw di en tout cas ren moom métti na trop ci ñun. waaw ñaari xarit to ñaari xarit toppalante nañ. parce que ñaari xarit. ku xam mbay Guèye xam man dama daan toog ak ñoom euh, Mbaye Guèye da daan ñëw bureau ñuy waxtaan. Ah. yàlla jël na ko yàlla na ko yàlla xare ajal dem na tey xaritam topp na ci. loolu nag mooy àdduna waaye lu mu métti métti way gëm moom bu méttee ba métti da ngay dem bu ci bi ñu gëm yàlla suñu ko fu ñu fa wéeroo rek méttit bi dana wàññeeku. macha allah jërëjëf. jërëjëf El Hadj Bakay yow jërëjëf ñuy fàttali que ëllëg lañ koy rob. Mhm. ginnaaw bu nu jullee tisbaar ba pare. dëj bi mi ngi am géejaway kër Balla Gaye hmm. kër Balla Gaye la dëj bi bu neexee yàlla. ëllëg bu nu jullee tisbaar ba pare ci la ñuy waajal duuba lees et ci lañ koy jébbal borom bi hmm. ñu ñaanal ko sunu borom xare ko àjjana am na yeneen témoignage yoo xam ne dinañ ci dellusi